Why you don't see you long time Sénégal Papa Ndiaye. yes yes yes yes yes maa la ko wax maa la ko wax gars yi seeti nañ bi jotati na Sénégal yi ngóoti na ah, my no my name is Papa Ndiaye you know from Sénégal West Africa you know me. this is 2STV the number one in the TV you know me tey ay anglais ma saf tey dama damay dama ciy fëlaale ba Angleterre <laughs> fëlaale ba America you know me yes everybody everybody look at me I'm a gentleman you know <laughs> this is the presenter you know from Senegal West Africa I'm working here 2STV is the best in the world salaamaaleykum Sénégal ak li ko wër waaw Papa Ndiaye ju lay doon. di leen bégal di leen bégee seen xol di feex seen xol di neex ah ci lan nay neex nay neex ba sagar xeeñ mbaa nay neex ba peex ku ma ci àndal ah xam ngeen ko xale Cece Mbere Sofia xale aselem ah. cim oh xoolal lii monsieur Guèye xol baa nga mel ni frigo baar ah aji maas xale pikin bi nga xamante ni ah moom statut yeeg wër na àdduna aji gi a ngi noonu xoolal loolu jongoma noppal boppam ëpp na mais Sofia noo nuyoo say noonu tey mais balaa ma nuyu damaa bëgg yow est-ce que doo ubbi butiku sañset tamit parce que ni ngay dóoree téléspectateurs yi fu ñu toll nii dafa metti torop ci xët yi mais loolu nga loolu nga loolu nga lii lan la damaa bëgg nga décortiquer balaa may nuyoo mën na sañse rek. ah <laughs> mën damaa tiit ci ay nelaw rek. fëq dara rek ñëw. nii nga fëqee nii. nii damaa damaa xëcc dara rek ñëw. sa fëq neex na ma. su ma dem entraînement ci lay jommee. ëpp li may dem entraînement di nga jommi monsieur Guèye. il faut que tu viennes dans ma nekkoon <laughs> sama njëkkee <laughs> tuuti veste ak beaucoup de t-shirt. ah kon dégg nga ma <laughs> un peu de veste rek un peu naa leen am chers téléspectateurs ah ci heure bu baax bi heure bi nga xam ne yéen ko tàmm ah muy li nga xam ne mooy na neex émission bu mag bi nga xam ne du lundi au di lay am de 17h à 18h. gàttal ci quelques minutes ah nii lay demee saa su nekk ah, di ci ànd ki nga xam ne mooy Papa Ndiaye sama doom sama doom day ak ki nga xam ne mooy waaw ajimaas dëgg neexul borom ratato karkarato kenn du moom moom mi yëngal réew mi nii lay demee saa su nekk di bëggee ñi nga xam ni ñooy waa 2STV tout le personnel de la 2STV waa régie bàyyi ma kenn ak ki nga xam ne moo tax tey waa ñu fi nekk muy Aquaterra suñu ndox bu baax bi nga xam ne boo ko naanee rek ah dëgg neexul da nga nga xam ne mooy wér gu yaram ah recommandé pour toute la famille ah boo dem sport baax na ci nga di ko yóbbu di ko di def ko sa poche ndànk rek ah baax ci ki nga xam ne mooy bébé bébé aussi booy defar bi borom aquaterra da ci baax ndax dañ ko ci taamu dëgg neexul bu ci kanamee ñu doxal li nga xam ne mooy thème bi. Sophie ni nga nuyoo saf na ma ni nga nuyoo neex na ma waa Sénégal xam nañ la ci baax ak teraanga ak lu bees ak bëggal leen ci nay neex. ah aji maas noo waa Sénégal nag borom Pikine aji <laughs> Papa Ndiaye Thiou nuyu naa la Sista Sofiane nuyu naa la ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Prince Mbacké sëñ Modou Mbacké Prince da Baye Karim di sant waa Pikine nga xam ni falaa ba woo nee naa guddi guddi Pikine wax dëgg yàlla di am bekk mbégte contentement ñëwati tous les mercredis comme ni ma koy defee fii sur la 2STV si émission nay neex dafa war a neex ñu sàjj ba mu rëtatoo saa su nekk investisseur Sophia ak Papa Ndiaye ni lay demee. waa <laughs> am. waaw mi ngi noonu yéen ko xam rëtatoo ngoog ah sama jigéen bii nga xamante ni ñaawul <laughs> damaa kontaan ci moom di ko bëggee ndax Sénégal yéen yéen ko bëgg. waaw Sophia yéen yéen ko bëgg mais Sophia man démb laay doog a xam ni nag. ndeke 2STV yi du moromu lenn ci Sénégal. yow lu la jaral ngay laajte ah, day laaj wala. dafa bëgg Sophia bi ma joxee sama numéro. <laughs> ndeke sénégalais yi. dafa mel ni xaw ma ndoxu Lac de ger gi lan leen defal 2S xaw ma ceeb bi ñuy lekk <laughs> musuma gis lii. ah doy na waar fi ñu toll nii daal boo bëggee dégg dëgg bu Sénégal rek de ba ci diaspora na neex bi la ñu kar ci heure bu baax bi nee naa la ku fi ku fi ku fi ku fi euh, songonoog ñun heure moom fi ñu toll nii tiit nga. non da ngay ndërmeelu da ngay daanu mais yow kon yéen loolu ngeen wax nag. lépp ngi bàyyi ñeneen ñi di ñëw ak waa ñëw na. xool leen sponsor yaa ngi mel ni mbàccum gerte fi mu nekk ñëw leen fii rek la. nee naa leen fii la ku fi sàjjee gën ku fi sàjjeewul te fii la lépp di di rëtatoowee. Adimaas xool leen bàyyi nañ télé yëpp ñëw fi ah, ñëpp a ko bàyyi de sponsor yi fi mu ne gën de fii la lépp di feeñee de te ngeen a gaaw ana sama caméra xoolal te kat affaire doo wax caméraman de da ngay wax rek miir bi jël la miir bi xoolal bi Aquaterra lay doon ah, une eau pure et légère ozonée riche en vitamines même damay damay ñaawal damay ñaawal ñeneen ñu amul <laughs> di dëgër ay waay am ñoo xam ne ni mar dina le ray waay désidératé ay waay désidératé bisimilah. bisimilah ok waaye ndox ngi nii eau oh, ozonée dëgg la lool. <laughs> Eh, légère ozonée. ah yaata saay. Mamadou yaata saay. yaata saay. Mamadou yaata saay. Aquatera yaata saay. Mamadou yaata saay. Aquatera. naata saay. mais mais barke yu ne ci. mais <laughs> ah eh yaata saay nag. waxal sa secret ndox mi da nga ci rax suukar wala lem. no ah, waxal non li ëpp na waxal sa secret ah lii du ndox kese. ba pare ndox bi dafa oyof. ozoné li tubaab bi wax eau pure légère et ozonée. c'est cette eau là. ah, ah facile à digérer aussi. <laughs> facile à digérer. dama am nu may def ak ñoom rek Sophie. mën naa ne. waaw waaw ban clip nga may may sax tey. man daal damaa bëgg comme Aquaterra daf ñu ñëw nuy si nii. waaw ñu bëggalee ci yi nga xam ne ñoo koy bëggee rek. ñu ciy àndal waaye di si dem Bambali Seck rek fi yëngatu. waaw kon sama rakk Bambali. ah ñëwal ba mu neex sama rakk jooju. farama ren la doxaloon. ayca mën na xol yi ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na ak rakk ji Bambali mi nga xamante ni waaye rek lay def rakk jooju. waaw kooku moom li muy def neex na lool dugg na ci xol yi mais Sofia. Hmm? doo ma wëral xale bu jigéen bi ne ci clip bi numéro. wër lool la jaral loolu. kii di sama doom day kon hmm? crédit kon ñàpp. cent mille ci ci numéro. cent mille laa lay wax de daf noo dama koy yokk yokkal teg ci cinquante. cent cinquante mille ci numéro yaa ne déjà baax sama doom nday ba pare loo ci xamul tey la anniversaire am. ah kooku na ko souhaité happy birthday to you. jëlal. maa la wax lii. waaw happy birthday to you doomu yaay Sofia kooku suñu yëf la. seen yëf la oh baby happy birthday. yande yande happy birthday to you. dundal loo dund doyul. ndeysaan sa dund am na njariñ. ndeysaan doom yaay Sofia nga ne lan sa xarit. ah ndeysaan Chouba ñu gën ko xam ci ki nga xam ne mooy Yande xale bi lëmbe réew mi moom lu ko neex lay def kenn mënulu ko dara. donc ma judduwaale ma puis je te souhaite plein de bonnes choses beaucoup de bonheur santé succès tout la te taxaw la ci lépp loo yëngatu dundal Yande. nga ne jongoma lan la. jongoma judduwaale la jongoma taaru cosaan ndeyam. dégg loolu kenn du Yande. waaw <laughs> ëpp na sàjj na fi ba baax kenn du Adima <laughs> kenn du moom Adima dégg ngeen ko li mu wax ci Yande nii lay demee demee. na dund xam ngeen ni démb dëkk bi yëngu na. na de. ñëpp a seetaan émission bi adduna bi Angleterre Amérique ngaay mexe ah yeneen télé yàlla buñ tëj yàlla nañ fi nekk mais tamit nag. nan wut ay émission yu mel nii. xam nga teg ci xale yu mel nii waaw xam nga yàlla dafa def boo jiitoo da neex a seetaan. te jamono ji nee naa la ñu yore seen télécommande fi mu toll ni damm nañ ko ñi scotché nañ ko scotché sur la 2STV ah! et nulle part ailleurs hein la télé autrement moom mën gars yi de Adimaas nit ñi bëgg na 2S de lii mooy ambiance du peuple nit ñi lii lañ soxla xàppi firi soulagé flab ah ambiance dund bonheur dëkk bi toj na wax amul nay neex mais lu xew ni lan la mhm. ah mais ah, nan neex dafa ñëw rek xam nga 2STV moom saa su nekk ak programme yu bees fu ko dul foogee rek lay tëlle tax na li neex askan wi rek moom moo leen ñor même ma ñaawalaat leen. moo tax ay waay mar dina leen rey waay. au pur. déshydraté waay ñu tuuti. aquaterra. Euh? déshydraté. Sophie da ci boole di waay bàyyi mbële waay Sophie. aquaterra euh? aquaterra. <laughs> Euh? Sophie rek mooy ñaawalaat. <laughs> ma ne bii laa leen di may. ah benn eau daal moo fi am muy bii dëgg neexul gisuñu beneen ñun ñun bii lañ gis. moo du yàq saay moo fi indi lii. te am na yeneen yu ñu yu ci ginnaaw. ba pare riche wax ñëpp ñëpp ngi daw di ñëw. riche en magnésium ak calcium. ñëpp ngi daw di ñëw xam nga kon da lay faj. Eh, waa waa WhatsApp groupe bi yëngu nañ nag. ah gars yi na neex dafa commencé WhatsApp groupe Angleterre. dégg loolu loolu Moustapha moo ko géré Moustapha Diagne. président waaw moo seen président bu dee Euh, bu dee Pikine Lamine Daabo la. waa néeg ba. waaw ñoom dañ ne bu carrément ñoom dañoo bëgg ñu leen di tudd ndax ñoom ñoo ko tippoo. waa néeg ba. waa HLM Grand Yoff tamit wut nañ seen groupe WhatsApp nay neex 2STV. waaw waaw lii lan la nag. mais ñëpp xaj nañ ci xam naa ni am na ñeneen ñi nga xam ne créé nañ sax te xamuñu la yow mi ña ngi koy créé di ko dund ci suuf ndax na neex nag dafa ñëw ak doole de dëgg neexul. ma joxate leen ko ngeen jëlati ko. 78 100. 26 26 xaru mooy sama numéro non eh, WhatsApp groupe yi il faut ma leen di gérer. ah il faut ma leen di gérer. jëlal ci bëgg 78 126 26 WhatsApp groupe nay neex ak 2 bu ngeen ma wooyee ma teg leen ci code. Lamine Daaba waa néeg ba ataaya jaa ngay jolli gaay ma ne ko Moustapha Diagne waa Angleterre ah séeri bisu. barki yonent bi oxo ak sëñ Axma Italie doomu yaayu o Pablo Italie non deux deux heures nag dafa wër àdduna. dafa wër àdduna ñun ñoo ko moom nee naa la heure bu baax bi ñun ñoo ko moom te keneen ku ci toppandoog ñun rek c'est parce que yow xanaa da ngaa gisul waa na neex dëgg neexut di woo. ñi nga xam ne ñooy tere yii xale xale yi toute fraîche xale yi dégg xale déggoo ba yéefe ne wax abut xale yoo xam ne fu leen neex sàjj waaye boo bëggee dégg dëgg maa yegg dara. Hmm. baa ci li sempre buur ngaram sumul fi ne amatul benn temps ma nga toog ca kanamu télé ba deux heures. ah Soumboulou Bathily ne la fii fii la bëgg a ñëw fii la bëgg a seetaan. dafa leer. non dama lay kii fii ku fi ñëw dama <laughs> a ñàkk ki ñaan. ko bu réew mi defaroo loxoom jugu ci. Eh, ah, ci loolu nag damay damay dem rek xool ana Alioune Nder Nder Nder. Nder kooku nañ na ma. dama koy may fël falaale yi ah, sànne ko def ba ñu moom ana waa Rési yéen may ma ko waay

ah ëpp na ëpp na ëpp na ci mag yi Alioune Mbaye Nder ci yow kontaan ci yow Nder lii rek moo tax ñu ne fii Sofia am nga gan ah amati naa gan dëkk bi yëngu na euh, premier bi dugg na allo allo allo oui ça soxna si salaamaaleykum salaam naka mu Aji Maas wuyul mi ngi noonu loolu kooka la waaye àndoon la classe. sama maam jàngoogu la classe déggal lii <laughs> waa technopole la ñuy wax. fay naa la maam booy. aji ma kontaan naa ñu bokk maam. sama <laughs> man la Ado la classe. Ado la classe kontaan naa maam Boy kooku sama maam la. merci beaucoup. merci beaucoup maam Boy kooku sama maam la Papa Ndiaye Thiou. Sister Sophia kooku sama maam la Ado la classe mooy borom technopole. nee naa ko tubaarkàlla moo tax jirim yi jooy ñu bàyyi yu jooy ñu kenn yëgul ca ndey ja dee dara dara mooy yaay gunjoo seen ak fan bay aatu. ah non kon ñooñu samay mbokk lañ. lan sama sœur. dërëm gi ay waay tey lu xaw. ah gan yee nii gan yee wuy si nii rek de gan yi la rek de allo allo allo allo ba xamal ma fekkee ba sonn damay naan sama aquaterra. waaw bi may dégager bi moom ma koy remplacer. man léegi bàyyi naa di jënd parfum lii boo koy naan jarul ngay parfum. dégg loolu. ayca <laughs> jaan gi moom wax nga ko mooy gaañu. non bàyyi naa jaan gi tey ah. dama la may allo allo. allo salaam sëñ bi ñoo ngi ziar. ziar naa leen <laughs> ah dëgg dafa leer. dëgg tey dafa leer. mais yéen a ci jàmm gën nañ ci yéen. Guèye dëgg neexul. nay neex la. 313 313. mais di leen félicité di leen wax ne nag ci ngeen ko jàpp kooku la. Sénégal yëpp yéen la ñuy seetaan. waaw waaw ndeysaan. mu ngi dëkk yéen di gis li ngeen defaral mu naaj trop. merci ndeysaan. di leen félicité da ngeen gën a góorgóorlu gën a jàppante. jërëjëf. incha allah te gëm seen bopp te xam ne ci yéen rek la suñu heure bi yéen a ko moom la bu ko la kenn dootu ko xëccoog yéen. waaye nañ toj suñu bopp waay. 2S 2S TV 2S TV 2S TV 2S TV ak waa Terra. mais Tafa Moustapha. mais wuy ma. waaw. damaa bëgg yow Papa Ndiaye. waaw. nga xam ne waa Guinée waa Matam waa Mali yëpp. Ah, yaay ba doole. manager mooy wax ndeysaan. ah. waaw waaw. ëpp na. kër Mère Dégène Baye nee na yow rek la ñuy jógee. ndeysaan. ndeysaan. Bintu Mbuub maam Yacine. ndeysaan ñoom Dégène maam Thierno. ndeysaan. nee nañ la dañ ñoo bëgg jëf yàgg loolu du tey. jooy moom tey du ma jooy. bu na jooyee tey sax nag a pas de problème maa ngi xaar ba jooy fii. non li ma waroon jooy jeex na démb. yow lu ñu ne nii nga jooy bii di ñëw yeneen rong nga ñëw. maa ngi xaar ba sama rong nga jeex na. moo yey jeex na wala bu ma ko bësoon sax du génn. ah. jërëjëf. merci merci. kon kontaan ci yéen. waaw jaajëf kooku mooy 313 Tafa Mbaye. moom daa bokk ci kër gi. te xam ni Sénégal ñoo ñu bëgg dañu bëggee. Sophie mais Sophie. Mhm. nay neex lañ woote. mais nay neex ñu bëgguñu ku ko yàq. ndax seytaane am na ndax seytaane kenn du ko gis. Mhm. waaye rambaaj mooy nit ki noppam. Mhm. sol ay xam di dox. di ku fekk soxol xol di waaj a neex. mu mu fexe ko ba mu naqari. lan moo tax rambaaj bëri ci dëkk bi. ah euh, lépp dafay sosu rek ci environnement bi. je pense que fu ndaje am rek nettalante dana fa am. yàqante dana fa am. pentirante pentirante dana ah, fa am ah huile de ah, ah. ba tax na nit ak moroomam du ñu bëgg ku nekk di raw sa moroom. Sénégal baaxoo nañ vraiment loolu dama ko seetlu ci kër yu mag yi. du ma ni kër yëpp nag exception am na ci mais kër yu mag yi parce que nit ku nekk ak sa néeg nit ku nekk sa jukko am na la xam bu bu bu dajalowee ci kër gi rek nettalante dafay am damay ñëw kat. man mi nekk ci néeg bi maax sama njaboot damay tourné dem xool papa Ndiaye la muy dund ca néegam. dégg nga loolu. waaw aji. ah rambaaj daal xam naa ne war nañ koo bàyyi. ak ñi reetaan te kontaan ñu. dëkk bee mhm. toll foo xamante ne dañuy ree te kontaan ñu lu leer la barki laa ci def vidéo boo xam ni peuple bee ko partagé. <laughs> yooyu dañ koo war a teg ci suuf <laughs> te xam ni lu dul jàmm jàmm moo ko gën. barke maam Thierno. waaye sol sa dal yaaroo tampër foo dem tas ko ritambale ko. dëgg de billaay dëgg la loolu. dëgg la de day na de tey mbaaj nay lay leer. nay jël ci ligne <laughs> mel ni kooku daw na de. déggal aji maas nee na dañuy jël seen tànk yi ah, def ko tamperon tey la ñuy arrêté rambaaj ba da nga leen dénoncé fi nekkal nag ah, sa tem la de berki dem maa ko def eh, sëtt boo xamante ni dafa toj da ngay fekk ñaari nit ñoo xamante ni xoolal dañoo ànd guddeeg ba ca jékki-jékki ah, ku ci romb sa morom bu ko hyperkil yow doo xam nu mu demee ndekete yoo Jakarta baa fa mooy sama rakk ba la ma waay rek. dëgg la de. nee na yureeku bi ci dëkk bi pour lan. <laughs> yureeku ni tame sunu yureeku ni tame sankal. du yureeku ne patu ndaa bu bën. di senn te nawet bi passé. nga ne di. di nawet bi passé. pour lan loolu di senn te nawet bi passé. xanaa la yu bee leen di senn. loolu. nit da ngay juste nit da ngay fier ma bëgg boo nee ma dama dama naan. ah <laughs> déggal gars yi ñu ngi yëngatu xam naa ñu ngi dee fi ñu toog allo allo <laughs> allo. allo. oui ça va si. ça maa ngi fi baa yaa ngi ci jàmm. ça noo tudd ak fan nga ñu woowee noonu. man la Fatou Diallo Fata 3 Adjuma Assane. Adjuma jëlal lool waaw Fatou waa dëkk bi yëngu na de. saa war mag ji nuyu aji nam naa la nga jongo maa nii. ah moo dara xewul lépp ci nay neex sur la 2STV. ah def ma macha allah. nee naa la daal fi ku bëgg a gisati samay œuvre rek kalma fii. Ah, waaw barke yonent bi ak sama sista Sofia borom noir de benn kii njëkkeem la gay ma maa la bëgg pire barke yonent bi ak papa Ndiaye Thiou suñu frère. waa yow ci lan nga nekk naka waa Pikine amiin waay. da ngay am ñu bokk nee leen nuyu naa leen ñooma ñoom ulay këli ndey faatu borom ndekki yu neex yi tubarkalla Pikine yëngu na. ndeysaan <laughs> ndeysaan. waa kontaan naa Fat Diallo allo. waa nag dama ne dama ne dama ne dama ne nag xam nga nag waa Pikine dañuy sot ñun on est fier waa aslem ana ngeen ana waa Sicap Foire waa <laughs> aslem grand waa ana waa waaw kay waa aslem a ngi noonu a ngi noonu ma man maa ngi fépp man maa ngi fépp nag tee saf saf yaa ngi fépp yaa ngi fépp ah, Pikine fa am ay mbokk kon waaw damay seeti sëñ Saliou Thiam ah, gis <laughs> damay seeti Fallou Dieng ñu ñëwaat kon léegi dina mbaaj tey foo Birame Bathie ñoo dem balaa ñoo dem nañ jël ki ci ligne alo allo allo allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. 2S. waaw 2S TV émission na neex. sama mag la neex. da neex a nuyu Pape di nuyu Pape Ndiaye moomu. ndeysaan. moomu dala sama rakk jooju Adjuma Samb Gueye man de Issa Gueye. ndeysaan Adja Issa Gueye. Eh, yoroog jabel baa ma ca cànd maa liggéey maram mbaay ay néew ma ngeew ba ma ñëw nga ni ma sip tubarkalla yow lu ma mën nu ma am tubarkalla da nga cee def sa loxo woowu la ba nga ñëw kooku Issa Gueye la ñoo bokk benn baay bu ma nee xam ne ñoo bokk ndey ak baay ñoo ñoom amin tambay ak day grâce Gueye ak Daba Gueye nga ni woowu la ba mu ñëw rek ni ma sip damaa bëgg jox ma bopp teg ma place bu nangu noppal ngeen xale bu baax xale bu am jom ndeysaan ndeysaan nee naa ko xale bu baax xale baa am jom dëgg la xale bu yam fan ka yam loo ndeysaan nee naa ko macha allah li ñu koy lef li yàlla na ko def seex. aji maa xamul dara kaf ak ree la xam. ak ambiance nee naa ko kaf reetaan la xam ñoo ambiance fonk ay mbokkam. fonk ñu ñun ñii. ndeysaan man nag man nee naa ko ñoo bokk waaw waaw te sama xarit nga. man li may yaayam man bilaay walaay dëgg la nu ma mel yow la. yéen yàlla àdduna laay waxal te àdduna xam nañ li may wax. bilaay dëgg la man. tey ñoom day laa taxaw ci ñoom ñii. ndeysaan. ndeysaan ndeysaan mercredi yi moo ko moom nag du ko bokk ak kenn de mercredi yi moom moo ko moom macha allah la aji maas daa saf Sénégal témoignage yi rafet na karkaraato la bëgg ak kafoore Papa Ndiaye yow it ngay nit ku baax sa rakk daa ànd ak du ma jooy Papa du ma jooy xamama waaye xam naa nee naa ko daal yal na jàmm ya wàcc si yéen daal loolu rek lañ leen di ñaanal. amiin jaay jàppal sa rakk sa jigéen mi ngi noonu dénk naa la ko. dénk naa la ko bu baax a baax dina baax incha allah. du ma jooy. yàlla leen yàlla jàppale. amiin yàlla la jaay yàlla jàppale ci barke Sëriñ Babacar. amiin amiin yaa rabbi amiin. amiin naa la yàlla demal bu ragal dara man maa la ko wax man Issa Gueye wër na yàlla bu ragal dara ca kaw ca kanam. amiin maa liggéey Maram Mbaye. te man maa la ko wax man mii Gueye maa la ko wax. ndeysaan amiin demal ci kaw ci kanam rek bu ragal dara. amiin amiin am na dina baax nuyu ma Fanjaay sama goro boobu Sëriñ Balla Tall ak tonton Habib mu baax moom. amiin amiin ndeysaan sama xol sedd na. kontaan naa si yow. merci merci merci bëgg naa la yaay bëgg naa la bu baax merci beaucoup. lu dul baax baax ko gën ah, ah. fexe ba ñu ñi bëgg la nga ne ci xol yi. lu ko waay jëndee jar na ko. mbaax amul i tànk waaye jéggi nay frontière. baax rek ko wóor. Mhm. aji. loolu Sénégal la bëgg nag xamoo lu dul jàmm. ambiance dama leen di may clip rek ñu ñëwaat. pelloos daal di waxtaana ah? waaw na neex na neex waaw Fallou Dieng na neex dem ci Fallou Dieng rek fël fël mim réew. lan fi fekk ëpp na de Fallou Dieng saala way nde <laughs> aji maas kooku doon way léegi mi mhm. gannaaw yàlla ak yonent bi sama liggéey ndey. waaw ak sama jom. Mhm. bokk na ci ñi jàpp sama combat. ah góor nga naan nit bu la lekkee olof la ko. nu ma mel ci doomi Dieng saala ak way nde yow la. ak a baax. ay waay Sofia tey dootoo ko de ndax gars yi fi ñu toll nii dañ jóg satal waa na neex rek allo allo. nañ jël ci ligne bi waa Louga nag ñu seen bopp waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñoo ngi ziar. Baye Gallo ziar Baye. yaa ngi ak waa këram. yàlla na yokku waaw waaw kooku tey sama mag laa bëgg a nuyoo Papa Ndiaye. ayca mi ngi nii jëlal. sama sëriñ. sama xarit. barke Serigne Bamba Xaadim Rasul sama xol sedd na. maa la raw. ndax ñun réew mi tey amuñu ku dul Serigne Touba El Hadj Malick Mamadou Mamadou Laye Boukounta Ndiassane maa lax loolu ak waa Jama Ba ak Cheikh Sadd. Eh, mais xam naa ne fi ne dama laa gañe. ah <laughs> bett nga ma de. man la aada aada jéembe borom prendre kiriñ yi. Eh, doomu yaay eh, ah. kontaan naa trop ci yow barki nekk bu baax yow ba ba jëmb ba muy gën a métti ba muy tar. kenn xamuñu kenn dégguñu yow sa jëmm ji tamit dëgg neexul. waaw dañu doon conseillé di ñu jàppale chaque jour ngeen ne rek dëgg nekkul ne leen ci day baax. Mhm. kon yow su ma gisee tarif sama xol day sedd damay am. jooy de pour woote pour dégg yow. <laughs> ndeysaan ngay sama xarit di ku baax. waaw mais nag télé bi daal yàlla jëm kanam. yow yaay borom parcelle yow yaay borom xolu or bi. <coughs> yow yaay sama rak rakkooma. dëgg la. teewul nag ñun ñëpp fa ñuy daje xam nga ko. waa ndax yenn saa yi nga dem ba Saalum Pa Moussa ndaanaan lu mag loolu ci Sénégal. dëgg tëgg fa lu kenn du dindi. yenn saa yi nu daje yow ci spectacle bu rëy ci Angleterre wala ca France wala ca Espagne. fils yow dundal maa ngi lay kontaane. amiin yaa waaw ndax yow da jantal bëgg lu baax ba pare xale yi bëgg la nag wàññil bayra bi nag. <laughs> bayra bi ngay laal wàññi ko ah. ba gën laa bëgg guddi yi. ba gën laa bëgg guddi yi Papa Ndiathio lii nga indi ci mim réew nay neex ku ci bokkul xiir gi dalaa war a rëkkate ba nga mel ni tàppalap nay neex mooy réew mi di <laughs> nay neex mooy muy réew mi ku nangu noppalu nangu leen ni ko yàlla def mu noppal leen nangu da yombali lii <laughs> mbàccu mbàccu man fii laa bëgg Sofia man maa Sofia tey yëngatu woo man non man. kii maa man la bëgg njëkkeem laa. kii la jëm bëgg. bilaa dama ko bëgg. mi ngi lay rey instant yi. Papa Ndiaye dama fay jaaree di souhaité ki nga xam ne mooy Adja sama mag. ah jàppuloo jéeri jàppuloo jéeri ah sa jigéen moo la tëraloon ca mariage ba dëgg neexul borom yére bu noir ba kenn du moom nee na tey nag ñaari xar la tëral HLM du du yomb tey. kenn du ñu jël ki ci bi dànk rek allo allo

amiin waay amiin amiin amiin. maa ngi tànn yàlla jaaw rabbi. waaw wala kili. ndeysaan ñooñu samay waay la ñu ndeysaan sama xol sedd na kolle. saan papa Ndiaye dëgg la. nekk wax abi këli. ndeysaan. abi këli la bawu abi këli. ndeysaan ñooñu ñooy borom pikin waa kër këli këli yi ñi nga xamante ni nee naa ko ba àll bi lënd bi tubarkalla kenn ñëwul ànd ak man ñoom ak man kenn ngewu leen bàkkat yaa ngi noonu ñooñu bu sama carrière tollee fii seen loxo jugu ci mhm. tubarkalla ak sànneene aram faxa borom ku ma ndaw borom tëngeej waaye tey xoolal fi ma sal borom kastoor demal xool fi la zaal zaal borom kastoor mu ngi Rufisque doomu Rufisque bi <laughs> fii la ma génnee nee naa borom yàq na la nag lu mu ñawul rafetul lu mu ñawul baaxul lu mu ñawul jongomawul zaal waaw yaay borom siso bi zaal borom kastoor saa nee aram faxa génn ci cum bi kooku mooy kuma ndaw ndaw kundaa ah, zaal zaal gaañ nga sama jigéen nag léegi ñaaw ma benn yoon zaal gaañ na ko nag tey gisoon ni ma yeggaay mais Adji Mass da ngaa ah. tudd suma ay nit waaw ndax ku ne ñoom ku ne Baba Ndiaye rek na ñoom ulay kili. waaw nañ jël ki ci ligne bi nañ jël ki ci ligne bi si lañ bokk allo. Sophie jëlal. allo. oui ça va si. ah. ngi ci jaamu. yàlla bu baax. noo tudd ak fan nga ñu woowee eh, noonu. plateau bi neex merci eh, eh. beaucoup pour la. pour la borom lépp mi ngi nii aji maa suy loolu. merci beaucoup fii dey xadi joobu ci jaar. Ah, <laughs> merci ah macha allah na la jàmm. merci beaucoup. <laughs> bi nag foo ñu ah, kooku mooy borom réew mi. ziar nañ la njaay ban na taala bakar kood njaay ma nu mbeeg maar wala ban njaay ma sajjal la lan ah, xam say maam di ko wóor déggal li déggal hmm? la amin amin <laughs> jigéen day jooba ci jaar ak make-up bi kenn du moom nee naa ko na loxo bi bu ma makkee damay dellu Inde tey damaa génn cosaan. Mm. merci. ndeysaan merci beaucoup kontaan nañu. borom réew mi Ndiaye Diatta. dégg nga loolu ëpp na. mais Adji Mass say lettre rafet na. waaw Khady Diop moo sàjj nii. macha allah Khady Diop a sàjj nii. da ngaa laal ñoom Ulay Koli te ku ne ñoom Ulay Koli ne Baba Ndiaye. ni Pikine aussi. Awa Ndiaye dafa daa fowandoo ak ñoom. ndeysaan ñoom Koli Koli. kooku riis séri Pape Copet. sama jooju kenn du moom. Mhm. mais seen yaay. Mhm. doomu jàmbur bu ñëw ci kër gi. day da lay favoriser sax bàyyi ay doom. barke maam Thierno lekk gu baax. riis du man ku ma xam-xam ma xam ma ci kañam Baba Ndiaye. Mm. dëgg la. kër googu nii la dafa mel ni. daa njabootee ñëpp. yaay da nga njabootee ñëpp kër gi may nekk kañam Baba Ndiaye fii dafa mel ni fii ak fii. ak ñi den woote léegi. Pikine tey dañoo sot. waaw dañoo sot nag ana waa asalam ana cameraman bi nit moom amul ku dul fi nga dëkk. a commencé du seen crédit jeex est ah, du seen crédit jeex. waaw waaw seen crédit jeex waa Pikine bi bëgg a rey ma na neex keroog waa asalam da leen xaw a rey mais garaawul tey waa waa mais eh, lépp nay neex la rek <laughs> dëgg daa baax pire borom noir dëgg ay nañ jël ci ligne bi allo allo. allo oui ça va soxna ça va ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax noo tudd ak fan nga ñu woowee. maa ngi leen di woowee Diouane Podor. Podor waa Podor. ñu ngi ci yow ah, a kontaan ci waa Podor. bilaay dama laa waa Podor bëgg nga merci merci beaucoup kontaan nañ bu baax waa Podor. lu bëri jaajëf nuyul ma Ami Dia sama mbokk yu nekk foofu xam man fu nekk dama fa am mbokk dëgg neexu yaa réew mi jàppaloo ko dégg incha allah ma waa Podor bu baax kontaan nañ ci woote bi macha allah yow xanaa xanaa xanaa sama mbokku papa nga sama mbokku papa El Hadj Ndiaye nga ko bandu raabe yow ko alpula neɗɗo ko banndum ah. yimmo moƴƴi baba moƴƴi bingal bono tam <laughs> figiri jigue harba jigue jigue ndeyɗade tan sa figiri bawdi eheaga alpulaar yimunoy lol dama ci nan ɗon ajileaga ajileta ajileta tey tukulóor yi kontaan nañ de tukulóor yi kontaan nañu ah. sama yaay Marème Ndiaye sama ci bureau ba mais xool baa ah, frigo glacé def neer la grande dame la première dame la première classe. dëgg loolu wax amut. kontaan maa gën a kontaan bu baax merci beaucoup pour yéen la. macha yaa rabbi amiin amiin. lu baax. amiin incha ay te mën naa kontaan nañ. xam nga ne àdduna da laa bëgg. Eh, ñëpp lañ bëgg mais fii lu tax buñ fi taxawee ñun mooy loolu. ñu fëlaale sànneeku def lu ñu neex. Adima xam nga ne Sénégal dañ lay wër. non buñ fi taxawee lii jéggi siraat la. waaw. Moustapha. barke yonent bi dafa lii sans eau la. aji góor aji góoromoora. 4G plus bi. 4G plus bi la réseau bu baax bi la. nay neex 4G plus bi la réseau bu baax. est-ce que doo ñu yóbbu clip. dama leen may clip kay doog a ñëwaat <laughs> ndax kii moom Abi Ba laay seeti sama rakk jooju. waaw ndax li mu génn ëpp na Abi doxalal ba mu neex ci nay neex nay neex ba peex. caatu Sénégal ak waaw maa la ko wax maa la ko wax Abiba moo fi jaaroon ni ngay fëlaaleeg ni ngay sànnee ma daaneel tey ngeen gis Sofia direeku noonu ba ci kanam am na Sofia ak watera bi def ci naan ah man énergie bi ma jox moo tax ma koy bëgg dinaa heure bu ma feccee ba pare dama koy bëgg. di nga gaañu de. eh fi non ma gaañu dama oyof nii eau légère lañ la wax. ah ëpp na de. eau légère pure et eau. man xaaral pour sama sama ndox. ah waaw. ma ndox mi moom. on est bien ñaareelu bit. te yàlla maa yaakaar ne réservoir laa naan. tey dama yaakaar dama réservé réservoir bi. fees na dell. grand théâtre da ngay tëmb de. non almaaru 16 ba temps fi mu. 16 da ngay tëmb de. almaaru 16 ba temps au damaa bëgg Adimaas. man maa la bëgg maa leen bëgg. mais ba tey ñu waxtaan rek bëggee saale leen Abiba moo def noonu. waaye ci Sidi Erama. gars yi dama leen bëgg a wax ne day neex pour yéen la day neex rek na xol yi sedd ngeen di fëlaale di def lu leen neex. Ah. ay waay lii tamit nag ci lañ bokk ci lañ bokk seen yëf la ci lañ bokk nañ leen jël aca allo allo allo oui soxna si ça xanaa njogono koogoo doo yëkkati voix bi tuuti waaw <laughs> yaa sant bu baax noo tudd fan nga ñu woowee Njóoba laa ñu woowee noonu Dakar Dakar <laughs> baax na mais Ndiobo yëkkati sa voix tuuti waaye ni nga seddee ñi ma neexuma de. dëkk bi de 2 ko moom. ah ba waaw. Ndakaaru 2S. allo. Guédiawaye 2S. daw na. Ah. yow leen boo. am na leen lu xew ni yow Sophia. ah émission bu neex bi rek nag. man ba 3 heures du matin fu ne lañ may woowee. émission bu neex bi askan wi bëgg rek. xew ci jamono tax ñu yëngatu ci lañ wax. lan moo tax nit bëggul ñaari nit yuy ànd bëggul jëkkër ak jabar ànd. bëggul yaay doom ànd. bëggul uh, copain ak copine ànd. bëggul ñaari copine ànd bëggul ñaari copain ànd nag. lu xew gis nga nettali nettali defoo la. ajimaas nettali defoo la. Mhm. complexe d'infériorité la. Mhm. parce que des fois nga gis ajimaas kat ànd ak Sofia. benn Papa Ndiaye ñëw ci digg bi gis ne ah. ñii kat ñoo ma ëppale lépp. déedéet papa Ndiaye comprendre nga. non waxin la rek. supposons supposons waaw. dégg na ak ñu ne kat Adji Mansour Soufiane Soufiane mi ñoo ma ëppale lépp. ah <laughs> baax na ci lañ bokk de allo allo. allo oui. soxna si. ça ci jàmm. noo tudd ak fan nga ñu woowee. yokkal voix bi tuuti. Awa laa tudd maa ngi wootee Kaolack. Awa Kaolack. oui. ani waa Kaolack. ñoo fi. baa ñu ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax. noo leen gisee émission na neex sur la 2STV. neex na trop. yéen a ngi koy yëg. bu baax. bu baax a baax. waaw. ah kontaan nañ ci yéen de. waaw mais sama tata bu neex na ma de. ah sa tata mi ngi nii jëlal gën a bëgg. tata. maa leen gën a bëgg. sa doom a ngoog. mais Ami yow niñ la niñ la bëggee mais tey maa bañ a làkk français bala ma fay def penalty te classe géwél yi laa yem ci olof bi rek <laughs> nga ne fooy yem sedd Sidi Rama maa ngi nii waaye maa la gën a bëgg. bëgg ah, maa ngi lay maa ngi gaañu. Adjumane mi ngi ñuy ray mi ngi posone. mais naka Kaolack naka Kaolack. mu ngi daaji naka Kaolack yéen a ci jàmm. maa ngi fay nuyu sama goro ak Papa Ndiaye Coppet ak Lamine Sène. yaa xam jëree ak sama goro boobu nag. dinañ yow nga ne noo tudd. man awa. cim foo dëkk ci Kaolack. man lay Baye. laay laay li laa ñastuma ah, Abdalaay. dama ne taaliba baay yëpp maa ngi leen koy may nag. may nañ ko ñëpp. waaw di ko may waa Bongore. lii seen yëf la de. ah deux heures yëngu de. yëngu na yënguwul ndànk sax. heure bi daal fan la sénégalais yi seetaan. 2STV. Sénégal ku ngeen bëgg. 2STV day neex. wax amul dara xew da ngeen di nelaw. wax amul dara eh, xew awa kontaanoon nañ ci woote bi. allez baax. merci yàlla da ngeen di nelaw. mais dama nekkoon dama nekkoon fu am solo maanaam nga gis Adji Mass ak Sofia di ànd. yow nga gis ni peut ñoom ñaar ñoo la raw ci lépp. complexe d'infériorité bi may wax mooy ñëw foofu. da lay jaral nga dem yàq der. wala nga sosol ko ngir lan mën a tolloog ñoom benn niveau yàqante bi foofu aussi Sénégal fi ñu toll nii ameetuñu vraiment sunu ah, sunu ay culture da ngay dëkk Pikine léegi ñu yóbbu la rue fa lañ la yóbbu teg la ci <laughs> di la ëwloo doo leen mënal dara ah, nga ah, sant léegi gëy ñu ni ja jaañ ngay sant di la yàq yaay Baba Jaañ ay la sokat ba pare nag jox tànk yi nag <laughs> loo bu ma leen jàppee xam ngeen ma doo leen changé <laughs> ay waay pourquoi rambaaj waay pourquoi rambaaj ak waa jaxase am na ñoo xam ne xanaa xamoo dëkk bi ñu tas Sénégal mooy pantre bi ah Sénégal moo ci gën a tuuti pantre nañ ko ci jox <laughs> Sénégal pantere man damaa tiddi xam naa ni yéen ñi seetaan tiit ngeen ci ajimaat mi ngi leen di rey <laughs> non mais dafa dafa am solo ah même aussi ñuy ñuy joxoñ baaraamu tuuba ci ñi nga xam ne peut-être ñooy yaay yi des fois nga nekk ci kër gu mag nga mm-hmm. yare ci sa doom la nga xam ne euh, mooy nettali des fois nga génn nga ñëw woo xale bi nekkoo lan moo xewoon ci kër gi xam boobu yaa ngi koy tàmmal li nga xam ne mooy nettali ci la nga xam ne xale day judduwaale day dem ba day sos la nga xam ne ëllëg ci biir gisu ko sax ci kër gi màggaaleeg moom loolu ku ko def yaa ngi jàngal xale nettali nettali xale waroo koo jàngal nettali nit war ngaa organiser ba ba ñëwee sa doom du sa doom moo lay wax waaw war ngaa ba boo ñëwee boo ko jàngalee nettali ba mu yóbbu la nettali lu fa xewul ba mu yóbbu la kër Pa Mor Ndong ban lay koŋ yaa koy yëg <laughs> man daal am na ñoo xam ne bu ma xamee seen bu ñu yegsee dama xam nga korete fi koré bi nga doon dégg <laughs> dama naan mari kepp <laughs> dun ma gaaw a yóbbu korete ma xamee ni da ngay seen mari kepp allo allo allo allo Yaa Caam oui xale ca la Seyna la star merci maman tu es <laughs> merci merci kontaan naa ci yow ma prunelle. la star ngoog moo nekk ci clip bu Mandiaye Seck. ah sama kenn moo woote nii. non non du moom keneen ki la Mandiaye aye. Ah, ça va xale bu kub bopp bi def ni man rek à la tendance ah. waaw dafa xew daaw na daaw na daaw na et eh, kontaan naa ci woote bi. xam nga ni sa oo baax na nag. ëpp na non nii rek de a. sama nga laal de du ma xam nga xam nga lundi da ngay mbéj mardi nga mbéj mercredi nga oyofal. waaw oh, jeudi nga daal di tëj rek da ngay lan. da ngay mbéj. mardi jeudi nga mbéj. mercredi nga oyofal. jeudi nga daal di mbéj. Eh, mercredi bu jotee damay jàllantu. man nii laa bëgg mercredi yaa ko moom da ngay mbéj ba mu neex. Ah, damay jàllantu non damay jàllantu. jàllantu ni damay dem defi clip <laughs> daal di ñëwaat ñu daal di am nuñ def aji maas mi du ma rey man xaaral ma delluwaat clip rek <laughs> ngeen seetaan xol yi fee xol yi neex ci lay neex ba Tamba rek ñu ñëwaat kulli fadrin kenn du moom de. doom de di ci gërëm nag papa cigarette doom yaay El Hadj Keita. ndeysaan ñaar laa di gis ñuy defar ay doom di jaay ay complice ay band lan nag. <laughs> ay gaañ <laughs> naa di ko may nag saanew. Eh, fekk saanew bi nga jël sama bi ngay sàcc. <laughs> saanew noo waa groupe la. waa kër Mbaye Fall waa kër Mère ñoom bébé faa xarit Seck ñoom Mbaye Bane. ñu ngi woote bay bëgg a dee. mais papa Sall mi ngi lay nuyu sa doom. Oh! ah jigéenu Binta borom nar. Eh, dafa lay eh daa daa Dubaay moo tax neexutoo woon jot. eh Frero. ah oui papa Ndiaye. jeew xam nga 2S war tam 2S koo a gis fii nga koy gisee. <laughs> borom action après action borom Dubaay ngi noonu. action ah, temps ah, nañ la ko présenté. Ah, papa Sall léegi ndeysaan Ahmed foofa la borom Amérique. Mhm. ndeysaan sugu. télé bi daan nag ndax jéggi na ay frontière nag. parce que lii tamit nag mbaa jàmm la. ay waaw ah mooy li ngay def neex na rek allo. se Papa Ndiaye ñu rëbbi fi ma tontu. maaleykum salaam sëñ bi ñooy ziar. ñu la delloo ziar maa ngi lay nuyu soxna si. maa ngi ci jaam bu baax baa ngi ci jaam maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax. noo tudd ak fan nga ñu woowee noonu.

si. yes I speak English. aji bàyyi ma aji bàyyi ma si aji bàyyi ma si. la léegi dama koy baal baal la laas. Ah. sama rakk ji nga xam ni dafa sës ci man rëkk te ma rëkk. tubarkalla. di ma woo bëgg ma yàlla rek tax. bëgg nga yaa bëgg lu ñaay lépp yow la marqué say empreinte rek a wóor te réew mi nee naa di defaroo sa loxo jugu ci dag fee yàgg dégg daal yàgg fee dégg léegi sama loxo bi nangu leen ay waay président Macky Sall <laughs> maa ngi dee laas président Macky war naa dégg liñ ma waxal waaw déggal loolu sama yaay Marème Faye war naa dégg liñ ma waxal si war nañ ko dégg de ah ci yow lu da ngaa baax bëgg ma dama conseillé def ma comme sa bopp. ndeysaan ndeysaan. bu fi jooy de bu fi jooy de waaye bu ko jooyloo waaye tamit. te yaa faa doon jooy dafa baax ci man di ma di ma nemmeeku di ma woo di ma conseillé di ma digal lu baax. ndeysaan. aw ma fayam daal wax dëgg yàlla dama koy bàyyi pour borom rek. yàlla gën a ah, ku def ku def dégg. ndeysaan ku deful doo dégg okkin. ndeysaan mais donc. waaw. yow amal jàmm bu baax. amiin mbaa affaire bi Sénégal a ngi féex. mais Sénégal a ngi seet bu baax. Sénégal a ngi neex neexation mi ngi neexation. déggal na neex léegi neexation maa la wax li neexation mais baax a baax a baax di la bëggee ñoom ñëpp. ndeysaan. barke yonent bëggee nañ la. ñoom xarifa sama waa gaal ñoom ñëpp da nga lay seetaan di la bëggee. may naa leen ko ñoom ñëpp. jeex na mais kontaan naa def. bëggee bëggee bëggee lu bari. xool ko ci ginnaaw nay neex la tudd nay neex rek la. nay neex nay neex la paa ma waxoon xale ba nay neex ba Tamba maa ma yuuxu rek. ay <laughs> ah, ah, eh, sàcc nga film dee. nay neex ba peex. ma may ko waa Kédougou. ndeysaan. waa Kédougou yëpp la bëgge. waa Kédougou maa leen ah sama xamal sama xarit bi. ana matt ba. Sofia sa bopp baax na. waaw nii de laa xam mbéjee dafa dafa tàng. Eh, ma loolu yow gros nii. oh ah xam aji tàngaay bi yii lay def. aji après tàngaay bi nii ngay def dëgg neef. dëgg ah da ngay dégradé. dégradé ala cëcëmbere. ala mu génn. foofa taaj waaw xale tubaabe <laughs> mani mani mani dama doon wax léegi ci waa Amérique Ahmed Fofana. ak Griff Sougou. Mhm. mais 2STV lan la nii ñëpp a koy seetaat. waaw ah, ah. laaw la ca dañ ci ànd ak saa su nekk ak Aquaterra rek 2STV xam nga bu ko Aquaterra gungee ci émission na neex bi. am na ñeneen ñoo xam ne ni maire bi nee na buñ leen wax. ma la wax <laughs> boutique bi fii lay ñëw neex. fii boutique Njaay bi. grossiste bi fii fii fii non nii rek nii rek. <laughs> mu neex indaale saak pour booy génn am loo def. si eh. yaa ko moom sa yëf la. maanaam oje la da ngay tojee doo oje de da ngay <laughs> tojee. man nii laa bëgg nii. waaye Papa Ndiaye am na kenn koo xam ne kenn la ci man kii programme maa xam nga Awa Wade moom moo ko moom surtout Ablaye Wade bi <laughs> dégg li mooy fête deuxième ah? borom teen waar de benn li ngeen judduwaale bàqat ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na na ko ñëpp souhaité borom la lan 28 avril macha allah macha allah ñu ñëwaat ci thème bi tuuti waaw dama bëgg ah ñëwal ñëwal waaw thème thème bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaane tey muy thème ndeysaan wala ah d'accord thème bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee tey ci émission na neex ah yéen ci ngeen bokk dugg leen ngeen joxe seen avis parce que nettalante bi ci dëkk bi doy na hmm, waar mais lan nga gisee ñi nga xam ni ñooy dunguru xam nga dunguru lu koy indi na naa jël ki ci liñ bi ba pare allo allo allo allo oui. oui soxna si. ça va bien. yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah maa noo tudd noo tudd ak fan nga ñu woowee. maa ngi tudd Mawa aji Mas laa bëggoon a waxal. aji jëlal mooy noonu waa Touba lañ. waa Ndao waa Touba noonu ndeysaan. ah kontaan naa. ndeysaan. Mawo. sa yaay ngi ni toog aji. ndeysaan sama yaay joog ñoo ngi yaay aji kura borom italien bàkkat bi. waaw ñu ngi nii kontaan nañ di seetaan. ndeysaan maa ngi leen di bégee ñu màggal faray Sadje Moustapha bu baax bëgg ma ndeysaan waaw jox sa yaay paas ma ko <laughs> allo aji waaw naa la yaay aji kuro borom italiano bi kontaan naa ñoo gën a kontaan amin amin na sa jàmm yàgg amin ñu bokk amin amin amin waaw ñun dañ lay bëggee. billaay xam naa ko yaa booy. ndeysaan waaw kontaan nañ lool maa ngi nii di la seetaan. ndeysaan kontaan nañu nuyu ma waa Ndaamaatu. waa Touba nuyu ma leen bu baax a baax xoli sedd. maam Dole maam Awa xale yëpp a ngi lay umi kaltoom. ndeysaan nuyul ma leen. <laughs> maam bu sa seen a ngi lay bëggee. ndeysaan. <laughs> waa kay jërëjëf ñooy ma njéemee. kontaan naa trop waay yaay aju kura ndeysaan ca Touba ndeysaan ndeysaan aji ma yaay eh, mhm. bëgg nañ la <laughs> eh, Papa Ndiaye ma ñëw fi nga xam ne mooy fi ma doon wax léegi ci ci ci ndeysaan yaay booy waaw waaw aji ah, waaw sama xol sedd na ñii waa Touba lañ Papa Ndiaye ndeysaan moo tax lu dul baax baax moo ko gën te naa bon sakkanul baax dinañ ci toftal lu ne boobu ne benn yoon nga koy dégg nit ñi nag teg la nag takk la ba nga mel ne tey bale teg la da ne dañoo xew dañ laa bëgg xew waaye kenn du yow borom noir déedéet kenn du yow kenn du yow xam nga man ci parti na da nga gis xale 28 ans bi jaw bi jaay SRS. nga ne xale yi am. huit ans nga naan danoo araw seen digg bopp yi nekkatu béjjaaw la SRS ko indi dee leen ko kal ci nay neex ma leen di <laughs> ki ci ligne bi non dee ay allo. allo oui. soxna si. ça va. ba yaa ngi ci jàmm. <laughs> ah man la awaat aji ma moom la. nabir nabirati. ay ku ko ci defati di ko dégg. nabir nabirati. sa tool laay wax dëgg dugg si na. ah dégg nga ah, yirim fara wadd njaag daaro fara wadd njaag yokku masa sango xeer tubarkala nee na la rafet day ndoog baax. tuy xale bi abul juddu dugg ñaw xale bi abul jiwu aboo ji ko aboo tar na moo daray maye yaa ma bëgg oh. a la bëgg moo ko bëgg a ko bëgg ah, moo ko bëgg maa ko bëgg yaa ko bëgg ne Eva Eva Eva Eva ay tempo bi baax na de Papa Diagne. Eh, Aliouma Tafa Diagne kontaan na trop. waaye yow nuyul ma Tafa Diagne sama yaay jooju tubarkalla. yaay Sali ba léegi nee na dugg na ba sonn. ndeysaan bàkkat yaa ngi noonu. ndeysaan. lii dara fay amiin amiin waay ñu bokk ko mooy borom la 28 mooy borom la 28. par anticipation joyeux anniversaire. ah oui dundal lu bari. billaay moom la ñu tudd léegi moom happy birthday. to dundal. allo. ndeysaan. daaw na de papa Ndiaye. aywa lii dafa neex am solo. ndeysaan am na ku ñuy wax Thierno Ndombo. Mhm. ca Pikine ca Pikine kooku ak ak Sara Jemmi. ñooñu ñooy faj fukki dafa juróom par bis. kenn hospitalisé raffinerie Mbao dafa kii fi mu ne nii dañ koy te tëj ñëpp wér nañ ñooñu dañuy faje Cerno <laughs> Ndombo Mour Samb def na ma mhm. day dimbali waa Pikine ñëpp group whatsapp yi gars yëpp waxaat ko te lu ñëpp waxay dëkk doomu yaay Ousin mhm. doomu yaay Pa Koumé di dimbali Mor Samb di jàppale Aziz Dine samay rakk bu ñu ma yóbbantee ma ne fii ci tele bi waaw te lantinoo du téye diw may borom Pikine may borom Pikine dafa leer Sofia mii bokk ci ñun faaw ñu wax xeetu baax baax yooyu mhm. ñu doog a ñëwaat ci thème bi mhm. Sophie amati nga gan de amati naa gan allo allo oui allo ça va na si ça va ngi fi ñu ngi ci jàmm baa ngi ci jàmm émission bi laa bëggoon a participer. ayca yaa ngi ci biir noo gisee thème bi. thème bi ñoom la waaw. waa Adima ajee ngi nii jëlal jëlal. maa ngi nii maa ngi nii ngi maa ngi nii maa ngi nii. sant gërëm yàlla. ah baba jiitaale mbaa yow ak jabel baba ca cann maali gay maram mbaay <laughs> eh sama waa kër famille papa yëngu nañ sama waa kër famille yaay yëngu nañ ah, et eh, fierté weesuwul lii je suis ah, daanu yow bu daanu kii la ñuy wër ñun kii la ñuy wër kii non kontaan naa nag Dabala sama mag sama xarit sama yaay. Mm. ndeysaan borom peya yi ngi noonu. naa moo tax ma woo sama xol sedd na. yaayi Coro Diagne awa Samb tubarkalla maamu ma mi ko ne. xaala ala. waree wa jam na kër waxi mag jëm del taali. lu waay dëgër dëgër njooy. wax amul dara xewul sama xol sedd na. kontaan naa maa gën a kontaan Baba ji Taali Mbaay. waaw kay merci waay ma Awa Samb. dinañ ko dégg. waa ñoom Mbayang. ndeysaan lii neex na waay. mais est-ce que koy gaañ. déedéet benn lañu kii njëkkeem laa daa sax si ñun sap. déggal ba mu gisee laa ne ko man sa fan si laa daf may rey. sama yaa ma doon daj mais tey yéen ñaar dama mercredi. <laughs> moom ma daj mais tey <laughs> daa toog di leen a rey lii la na neex. <laughs> na neex lii daal lañ fi nekkee. dafa war a neex leen bëggal. seen xol waaye mbaa kenn du wel kooku kooku mi ngi mi ngi route Mbaye Dieye Faye Sacré Cœur ma fa moo dàq jaay solo bu rafet ci mim réew yóbbu ma fa lan bu rafet lan bu rafet ñëwal fii ah. welma ah, so ñëwal Sofia wane la ci boutique ah, Sofia wane la ci boutique am Njaay maa ngi fi de Njaay maa ngi fi de Njaay maa ngi fi allo allo ma tinga gan ay waay sama crédit yëpp a ngi jeex salan ay waa dugg si nga dugg si nga si nga ñu ngi lay dégg soxna si waaw na ngeen def. ngi fi ñu ngi ci jàmm bu baax tur bi ak fan la ñu woowee. bien. maa ngi woowee Saint-Louis. Saint-Louis ani waa Ndar. ñëpp ngi fi. waa ñu ngi ci jàmm bu baax. ñoom ci jàmm soxna bi rafet na trop. merci beaucoup ëpp na da ko summi jox la. zaal zaal ah. zaal. borom kastoor doomu Rufisque bi moo fi jaar. doomu yaay sànni ne ah. aram faxa. borom du kumaan kuma ndaw. na la jàpp na la rafet na trop merci beaucoup. ko ci bëggee ñaaw nooy def. rek euh, ci sama numéro xam naa ni nan la ko jox ci suuf. waa bàyyi numéro am ci suuf moom. Papa Ndiaye Coppe gëj Papa Ndiaye nga ñëw ndax. Ah? waaw. waaw wax leen Mansour Faye <laughs> euh, da ngeen bëgg ma ñëw <laughs> waxal leen ma sama papa Mansour Faye bu baax moomu na ko da ngeen a maa bëgg indi ndar. waaw barki démb nag ñëw naa ba Saint-Louis mais yegguma ndar nag. <laughs> ah loolu la nit ku nga. ah mais ñun ñëpp a far. am na mu solo ma xamul xamoo ma rek waaye xam naa la. <laughs> ndeysaan mbaa baax rek nga ma xamal. ndeysaan ci samay baax rek nga xam samay xeetu baax baax. ah ñu baax rek kuy ngay wax la ñu ci biir dafa dafa wax lu rafet ci yow. ndeysaan dama kontaan waa Ndara Ngop. xale ndar tàkku saanu ndar ay waay ku bëgg teraanga waa goxu mbaaj waa noor waa mm-hmm. pikin dama ciy nuyu nag ba Mansour Faye baax mi nga xamante ni daa ndar ndar rek di def lu baax barke yonent bi dara xewul wax amul ndeysaan boo baaxee ñëpp bëgg la boo fi nekk lee nit ñi yàlla téyel la fi rek boo fi nekkalul kenn nuyul ma ci sama mag bi Aminata Mbaye yaayu Kia ah nañ ko ko dox waaw naa ne ñoom ci lañ bokk tamit ñoom ñu ñu nuyu noonu mais ba tey ñu ñëw ci li nga xam ne mooy rambaaj ak nettali baa xam nga ni c'est un problème psychologique. Mhm. non feebar la maladie. feebar la de xam nga loolu. maladie infectieuse. non qui ne peut pas soigner sur l'observateur. ay waay tamit lii tamit nag wax leen ci baa xam nga ni oui ma mercredi yi ngay faj fu ñu toll nii ñu ngi jog de cocc di reetaan eh, démb dañoo faj nit ñi tey daa ah? daa ñëw yëkkati leen non ñëpp ñëpp ñëpp a jóg non léegi weekend bi sax ñu indi leen weekend boo leen bëggee <laughs> yéen mënoo leen yéen neexoo leen mais moi je disais que c'est un c'est problème psychologique mhm. parce que bu fekkee ni da nga da nga da comme li ma doon wax sànq ci dunguru bi laa ñëw mhm. nga gis benn Papa Ndiaye nekk artiste di ànd ak ki nga xam ne mooy euh, Pape Diouf wala dara yow nga ñëw nekk seen sukku mhm. tayee nga jël ci kii bu subaa nga jël ah, ci kële nettali googu noonu dangay dem ba da ngay jaxase ñaar ñooñu nga xam ne xamoo lu tax ñu ànd billaay ndeysaan xamoo lan moo tax ñu yàlla boole leen nga ñëw ci ay nettalante wala bañ ñu ànd tax na yow nga ñëw di leen di di yàq diggante bi daal mm-hmm. te Sénégal fu ñu toll nii looloo fi bari rawatina ci milieu bi ñu ne te xam nga lu koy indee soxor soxor mooy bon moo koy indi gina boo soxoree da ngay capable dëgg la da dem ba am Alzheimer da ngay am Alzheimer. <laughs> luy loolu. Alzheimer lu rëy ni da nga koo fàtte te yaa ko def <laughs> yow la. <laughs> muy sama tay man damaa bëgg ngeen déglu ma tuuti. non ñun ñaa ngi dee. li ma bëggoon wax dina dem ndax. Adjumas dina dem non ah, ñun ñaa ngi dee barki yàlla téléspectateur yi instant yi Adjumas faj na leen. Adjumas na leen. gis nga nit. waaw da am fulla ak fayda. dafa leer. gis nga man li may metti Sofia ba ma koy def mais du lu ma nit di wax. déedéet. li may metti Adji Mass moo koy def. lii laa bëgg ma defante moom. j'aime mais ay nga. dama la dul may kanam góor waaye dafa am nu manquant ñi nga xam ne ñoom déglu nit matadi gënal ñu gis loolu ça veut dire matadi ñoo ñoo ñi bëgg détail ay waxu picc waxu picc picc picc picc picc <laughs> Sophia dafa am ku naan Fuuta laa dëkk du fututuñ mhm. dafa am ne Fuuta laa dëkk du ni da fulla ba nga xamante ni Sofia mii mm. du ma may ku ma ñëw di wax ci moom déedéet la may metti moo a koy def ma lijjanti ko nag mat gu toll ni lu ma waaye def fa ma defee laa ko lijjanti ah, mhm. ko defee rek ki ngay takkal Aziz ki ngay pintir bàyyi ki ngay laso bàyyi góor tànk mi nag mën naa waxal boppam maytu ko yaa ngi may dégg xoolal Seydina Mohamed nee na fitna ngay nelaw. ku ko yee ànd ak moom. léegi nag kon dañuy ànd ak waa Régis nag ma mayaat leen beneen clip rek ñu doog a ñëwaat. est-ce que est-ce que du bi Papa Ndiaye du ñu dem. Euh, rubrique féroce waaw gars yi namm nañ ko de. dañuy manel Diop ba pare doo ko féroce. ah kon nañ dem manel doo ko mën naa ne. ëpp na ëpp na nañ piqué cër yi ndànk ëpp na ëpp na ëpp na kookoy manal is baak mag ji nga xamante ni ndaanaan la kenn mënu ko génn ci réew mi mais caméraman yaa ngi toj ci ginnaaw. mais xoolal mën nañu def la ilaha illallah non dama lax dara de. 2S nii la mel de. 2S moo mel nii waaye nag. émission bi am na lu mu ànd. équipe de bonheur émission bi day bëggal ñëpp cameraman yi. day bëggal mais cameraman yi yu ñu fi fecc yëpp ñoo ñu koy jox. moo bu joxe fii jibi euh, large bi joxe fii. Euh, sama mbokk taalibe euh, nee na bu ma ko tudd joxe fii. tudd kele waaw xam naa leen de xam mi Adji Mass gën a tële fekk Sénégal. Adji Mass man kay def man nee naa ko yow la jaral lii nga dëkk Pikine ba pare jéem ko man tax maa ngi jéem mënuma un euro li mi nga ne li ma nar a fecc yëpp fi mu ne ah. nga ni mënoo la mën naa ko wax mënuma ëpp nee na lu mu nar a fecc da koy oh, da koy wax wax laa mën mënuma fecc waaye nag buñ ca jógee Tàkko Diallo madame Dimé la grande dame la première dame la première classe ak Yacine borom Belgique sàjjal lañ ma jasner boo xam ne de xam naa ne bis bu ma ko solee fi mercredi ah, am nañ dañuy mu yopp waa dañ lay sàjjal te duñu sàjjal xaw a jaaxal nag eh, ma dugg de partage partage xaw ma la ngeen def noonu yéen doa Belgique bu nekkul trois wala quatre du fi dugg partage partage waaye Abdou Pen ma pen Issa Thiam Mali Bamba kooku 4G plus bi est-ce que xam nga suba nga doyal ci Omar Pène ak Thione Seck ak Youssou Ndour yu eh, damaa bëgg damaa bëgg nga wax ne yow yaay président des jeunes du Sénégal ah maa ngi ah waaw damaa bëgg nga wax leen ko ndax xam ko ni ñu ne ni ñu bégalee ni ak maa loobe sama ku la ma ca sengi naat ma faali ku naar ba tëx ba balaa dégg fukki bala ñaan ni eh, loolu xam nga ko eh, loolu loolu Modou Mbaye laa koy may Modou Mbaye ko Modou Mbaye ko Modou Mbaye ba dama fils moo ragalu lu loolu mooy bay fils dañ koy yoole yow dañ koy yoole yoole yoole yoole ci Modou eh fils xoolal dañ la yoole boy borom Bantamba TV xale bi yëngal jamono dafa leen est-ce que xam nga piki na ngay toj yàgg na gaa yaa ngay rayante WhatsApp groupe ba nee nañ Papa Ndiaye fecc nañ ba tour balaa daya kaase <laughs> Papa Ndiaye jëlal sa aquaterra mais lii lan la rempli énergie eh, rempli énergie mais kii jaratul léegi may jënd ay parfum de classe koy naan li ngay ñàkk man moom ngay eh. transpirer kii damaa bëgg Macky Sall xool lan lay def ci ndox mi li neex na non dafa war àdduna ëpp na te am na lu mu àndal surtout bébé yi sax nag mën nañ leen ci defaral biberon ñii def sport nañ ko gàddu ndànk yóbbaale ko nag vraiment Mamadou Yatassaye Sénégal kontaan na ci moom ndax waxuñu ko dëkk ci dëkk bi dañ ne dëkk ci dëkk bi boole ko defar dëkk bi ñëw indi lii sénégalais di ci liggéey doomu réew mi te est doomu réew mi réew mi ba pare xoolal boo ko nee kar mu ne la allo. ndeysaan disponible loolu laa bëgg ci célébrité. non dama lay wax dara. Mhm. gis nga fii nit ñi namuñu dara. déedéet nit ñi yàllaa leen yor. dëgg la mais yëg nit ñeeg faale nit ñi. Mhm. dafa am solo. Mhm. Sofia démb bi ma joxee sama numéro. ñi ma jot ci ay nit rek dama cee jàngat man kay ci dara da nga sonn ba ni ma am Sofia wuyul. non dama ci jàngat waaw mais dañ ñaan moon ñun fii ñu ne. nu ñu mel yéen la. waaw mais xoolal ma Aquaterra ba ba tey ak a neex a téye. neex a téye gi nii. na un litre. cinq litres bi tubaarkàlla na ay pipettes. Aquaterra sama yi moo dañ koy may ki nga xam mooy le grand journaliste de la 2STV Moussa Sène borom urgence. ah, ah mi ngi bëggee émission bi de. gaa yi groupe whatsapp nay neex bi nee nañ dafa am ku ñuy wax Mor Cissé mhm. Mor Cissé moo dëkk Pikine du mooy wuleen ci dara mhm. ku feebar mu faj ku mar mu jox la nga naan mhm. lu waay soxla nga ñëw mu fajal la ko dëgg la moo fa nekkal waa Pikine daal Mor Cissé Lamine Daabo ak waa groupe whatsapp nay neex waa Pikine ak waa néeg ba sant ñeel na la ngërëm ñeel na la Sofia delluwaatal ma ci sa temu tey ah temu tey bi li ñuy nettali moom li ñuy waxtaanee mooy nettali rambaaj jaxasante mais je pense que Sénégal euh, mën nañ xeex li nga xam ne mooy nettali aji maas mhm. bu fekkee am nga xëy mhm. am nga loo def xam nga jot occupation occupation boo ko am boo amee xëy am am loo def occupation am occupation doo tala nettali déedéet ñàkk jot mooy tax ngay toog jël sa tànk bi def ko ni balbalu maa bo may ma may leen ma teg naa ko s'il vous plaît il faut écrire ce note là <laughs> parce que il est très très bien il jëriñ <laughs> fais le étiré. E e. moo gën nga sol di nga yureeku rek. sama rakk ji wax na ko bàyyi leen yureeku bi delluwaatal ci boo amee jot de mooy li may wax mooy tax ngay toog di nettali nga dem kër Aji Maas xool la fa am génn dem kër Sofia xool la fa am dugg kër Papa Ndiaye xam nga kon yaa ngi nettali yaa ngi jaxase waaye bu la yàlla defee ngay xëy 8 heures wala 7 heures. di wàcc 6 heures doo tara sax lekk da nga ñëw rek tëdd nelaw. waaw ah ñu changé rek ndax man samay vidéo laa yore wax amul te maa fi nekkal population bi ko bàyyi ma leen engagé waatee dinañ ñee ko dee. nañ bàyyi nettali pour lan nettali. jëlal nettali gi rek am na loo xamante ni yow dof laa ko tuddee wala wala ñàkk valeur weesoo loolu. nit da ngay am ko ce qu'on appelle la personnalité. ñaw bu deñee ci. te nag foo jaar te nag foo jaar ba jur fa. <laughs> boo jaaree a jur fa li nga fa war a jur. waaw buñ la xëtee ba taaj la ngay xewi xewi mel ni xar muñ tey la. kay mel ni xalu turabiir sànq xanaa. nga ne ngay mel ni. xalu turabiir <laughs> ni ponk mu dof. groupe whatsapp bi nag am na ñoo xam ne ñoo tas groupe whatsapp. déggoo man la envoyé message bi jot na koo xam ne moom tëgg nañ ko ci mbéjum jinne boo xamante ni keroog dafa naax. nopp baa ngay xelli fee fii zane. baax na bàyyi ma bàyyi ma. <laughs> kii laay Adima nga ñu mën na jóg. mbéjum jinne. jinne ba pare li ci li ci doy waar mooy groupe WhatsApp bi aji. ñoo tas Sénégal groupe WhatsApp bi mi ngi toj. mi ngi tas Sénégal. dafay am ay clan ya nga xam ne ñoom seen biir dañuy tegandoo seen i ay plan. coalition xeex ajimaas. xeex waaw kay noonu la ñuy def xeex ajimaas. waaw ajimaas mi yàlla baaxal. waaw te neewoon naa la ku ne sa xoolee sa wërsëg bu kenn mere kenn kenn. ah bu kenn mere kenn de billaay dégg naa dëgg. bis bis bis. ku ne sa xol mooy sa wërsëg. bu kenn mere kenn kuy mere. dégg naa dëgg tey sa fii mere ko. rëkkate ko ba mu noox. waaw te xam ne sa xol rek moo la tooñ. moo la tooñ de kenn tooñu la. baa nga jëm ko réanimer rek. jëm ko réanimer rek je suis content d'elle <laughs> non kii dama koo bëgg. ma fee di ñu max ñu max. tem temam la. non je suis content de toi mooy borom vidéo yi. yaa ngi leen di ñamal bu baax ñi ngi ñam te xam naa ne Mbaye ba ne xol ba fiix na. dafa leer maa ngi koy ñamal bu la dara. dafa leer waaye kenn du Mounirou Gueye borom Espagne. tey nag daf maa andi koy bu dee. non yéen kay man fi ñu toll nii kaye ngeen indi dama leen di seetaan rek daa andi yëppam dama ne gis nga Mounirou Gueye waa Bires Doré Pikine ba. waaw ngay ñëwati yow. lim leen rek buntu bi moom ba. ñoom abi kili ñooñu namu ma dara. bir ki démb dama faa sàjj sama anniversaire meloon na ni macha allah tiga tiga ma ban kër lañ koy toggee waaye man du ma lekk sabra. boobu ñaari yoon nañ koy way dans la semaine. notre président de la république son excellence maa ngi lay ñaan ngir yàlla bu fi bu permettre benn tigga dëgg sabra def luy day dugg tigga dëgg sabra day dugg dang ngay def dang waaye waa groupe àjjana na ngi leen di waa jeune VIP sama waa groupe ak maa dagee sama mag borom France ak Aldo la classe sama maam moo njëkk a dugg sàcc waa léegi nag balaa maa dem ci beneen bi ci topp beneen bi ci topp lay bàyyi nga tàggoo Adimaas déggal boo paree ma jël jox Sofia mu tàggoo ma tëj réew mi yor caabi yóbbu ko ba suba waaw waaw dañu ah, moom réew mi yaa ko ubbiwaat yaa ko ubbiwaat deuxième mi moom réew mi sa caabi la waa ki yonent bi bi te nga tàggoo <laughs> nii di bariwul s'il rek waa jom mi bari laa bëgg ëpp na li ngeen judduwaale bi mi ngi nii xale baa ngi nii toog aji mas gay doon waaw maa nekkoon fii nag wax naa leen ko tous les mercredis da ngeen may am fii sur la 2STV ci émission bu mag bi nga xamante ne naa ko mooy réew mi moo marqué empreinte am saa zoo la casier plus bi laa ko tuddee. mooy ambiance du peuple. na neex nay neex. dafa war a neex moo tax muy neex saa su nekk. waaw foofu laay jaare nag di di di am mbégte contentement fierté ma bokk ak yéen plateau bi mu neex lool nekk ambiance ak jàmm salaam lii dafa neex aji yow da ngaa baax vraiment waaye kenn du yéen mm-hmm. bilaay walaay dañuy kontaan yeggale ndeysaan léegi nag di gërëm waa nga xamante ni falaa ba guddi guddi Pikine di gërëm waa Touba gis nga dañoo dugg waa Tiwaawan ni nee addi yeegu yaan lu ma ci lekk day rees tubaarkàlla Seydi Hadji Malick defe naa ni moo dalaloon sama mam ca Tiwaawan maasàllaa di ndoo di di gërëm waa Kulingi Jaan ah waa waa waa Mbour ñoom awa sama xarit yi waa Mbaaw Medina nga xamante ni Sénégal yëpp daal waa Sénégal ñëpp ñu ngi leen di gërëm waaw kontaan naa ci Adjemaas dina ñëwaat mercredi xaar leen ko kii ma jox sama rakk ju bopp ji nga xamante ni moom garmi la boppam bu riche bi xale asalem xale cece mbere maa def sama petite tête nii ndànk rek def à la cece mbere mboroma tooc à la légère njëkk Adjemaas semaine prochaine ma fël feneen madame ngay njëkk Adjemaas ah waaw béggee naa ci Adjemaas ah moom xam naa tàngaay bi da koy raser waa dëgg neexul mais amoon naa mbégte partagé plateau bi ak yow vraiment c'est c'est un plaisir yow dama laa fan dëgg neexul da nga baax ah ak ki nga xam ne mooy sama góoram borom bulet yu bari borom caabi bi nga xam ne moom moom réew bi kontaanoon nañ am chers téléspectateurs ni lay demee saa su nekk du lundi au jeudi lay doon de 17h à 18 h di ci ànd ki nga xam ne mooy borom eau bu baax bi ah pure et légère ozonée moo riche en magnésium riche en calcium aquaterra lañ koy wax di wax un joyeux anniversaire à Adja Adja sama mag yow dundal lu bari adoma buñ ma jëlu grand plan nag wala gros plan moo caabi. <laughs> moo tëj dama ci gërëm 313 sama doomu ndey ak Baba Ndiaye Boga Jaw ma xuja sama rak. Sénégal Ndiaye man yéen ma bëgg waaye man mii maa leen faafoo faale leen Baye Modou kan ma siré ndumbe jëlal dama ne yow dundal rek dundal yaay sama xarit di sama doomu nday jàpp ci duudu ba sama asrem Grand Yoff pareel ndax yëfi du yomb sopp na bu kutiir Kër Mbay Fall yow yaay sama doomu ndey bul jaaxle dinañ leen bëggal ba ngeen bëgg dama Sénégal yéen a bëgg lii Sénégal yéen a moom lii nay neex maa ngi ci bëggal ñëpp di leen wax ni nag paradise paradise mi ngi waaj a ñëw ci man di ma jàppale ci émission bi ndax xam ngeen dama war di leen bëggal Ouzin ah mi ngi waaj a ñëw nag gars yi du yomb nag képp ku nag ku soxla sañseel Papa Ndiaye defal 78 126 26. 78 126 nay neex ci 2STV ak Papa Ndiaye Thiou moo fi jaaroon di leen bëggal di leen kontaane nag e gars yi nay neex ba Tamba ànd ak rototo Sofia ñu falaale sànneeku sa sadji def ba muy baax au